Eh, c'est un scandale du jour nous de gludier, vidéo le budget d'un pays c'est c'est unicité il y a des principes de finances publiques comme li ma lay wax amul budget Diomaye budget jéegi budget lii mm-hmm. même bu fekkee ne dafa am ay spécialité am spécificité am l'unicité Il y a c'est des principes de finances publiques trimestriel lañ ko décider par trois mois la New jox ku nekk sa patch pàcc bi ñu lay jox dafa am loo xamante ni exécution comme li ma la wax mu am ay engagement am ay liquidation am ay paiement am fu mu war a jaar am ay fournisseur am loo xamante ni caisse d'avance la mhm. caisse d'avance yi nag li muy jàllee mooy dañ naa la par exemple comme ministère ba ma nekk am na ay caisse yu fa nekk mhm. am na loo xamante ni ñu ngi koy waxee FAES le fonds qui est dédié à l'économie sociale et solidaire mhm. yoo xamante ni un milliard la du secret mi ngi assemblée nationale ñu teg 250 millions lañ leen di jox par trimestre lan lañ ci def yow yaay définir nan nga koy doxalee am loo xamante ne assemblée définir nan ko ci ban cadre nga koy defee. Mhm. muy loo xamante ni euh, c'est des segments qui sont fermés. léegi venant revenant ci euh, fonds yi nga xam ne moom la jomay fay di wax les huit milliards en question. du xaalis bu ñuy jox président Sall benn. loolooy benn bi ñaareel bi aussi. Mhm. est-ce que munu ci jël avance. Euh, dougal ko fenen le temps année bi di ñew mu expliquer ko est-ce que loolu fofu foofu la problème bi mom la lay wax loolu moy li nga xamanteni 15 avance non lay marché voilà est-ce que du loolu moo ci am lay marché ni mi marché moy non président Macky Sall wul ci li nga xam mo moo na plus tard président Macky Sall mënul def loolu loolu moy le président Diomaye Fay n'a pas parlé avec ses services mm-hmm. bu waxoon ak ay services am tey jii ki nga xamanteni mom moy le ministre des finances c'est quelqu'un bo xamanteni yag na ci ministère boobu mm-hmm. euh, ñak xam limu waral dafa bëri ñàkk xam li mu waral dafa bëri te li gën a bon ci àdduna mooy ki xamul ba pare bëggul laajte wala ki gën a bon ci àdduna mooy nga xam ba pare di def yëfu maa tey nañ ci yàlla musal mag buy def yëfu maa tey daal nañ yàlla nañ ci yàlla musal mag buy def yëfu nga xam ne munoo jël yat dóor ko munoo koo xas munoo koo saaga nañ ci yàlla musal mooy ñii ñii may ba ñu tudd mooy ñii ay mag yu ñàkk jom jéegi job wax na ko soit xamul soit xam na ko moo ko tey te mag moom bu dul ruus day toog naan maa tey a ko moom kon yow doo ruus ba tey ci scandale di jour ma sonn right.